le patronage de son excellence monsieur Macky président de la République du Sénégal et sous la présidence du ministre de la Culture monsieur Abdoulaye Diop et sous le coparrainage de m Assane Diop, ministre président du conseil départemental de Koungheul et de son excellence Sidi Ould Didi, ambassadeur de la République islamique de Mauritanie au Sénégal, monsieur Mayassine Camara, ministre, secrétaire d'État, maire de la ville de Koungheul et l'ensemble des conseillers municipaux vous convient édition du Festa Koungheul le Festa Koungheul le samedi 4 janvier 2020 ce festival inscrit dans l'agenda culturel de la commune permettra de mettre le focus sur la culture des Maures vivant en communauté depuis plus de 200 ans à Koungheul une occasion de découvrir l'art culinaire vestimentaire et les chorégraphies de cette belle et adorable communauté à cette occasion monsieur Mayassine Camara invite ses collègues maires et l'ensemble des députés, les hauts conseillers du HCCT, les honorables conseillers, membres du Conseil économique, social et environnemental, les chefs de service de la région et l'ensemble des populations de Koungheul ñu ci woo ñëpp bàyyiwuñu kenn les Kognaaji les Peul les Socé les Bambara les Soninké di ci woo séeréer yi di ci woo tukulóor yi di ci woo joolaa yi wolof yi ñun ñëpp ñu àndandoo di vivre en communauté kon nag Koungheul ñun ñëpp fa lañ jëm le 4 janvier Koungheul dina neex dina xumb dina bëri ay gan